mbokk yi ma jottali leen communiqué bi bàyyeekoo ci ministère de la santé et de l'action sociale tey altine ñaar fukki fan ci weeru juillet biñ nekk ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a ci juróom benn téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent test yi ñuy def téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñoo ci positif juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari cas ñoo ci contact mooy ñi jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ñoo ci cas contact mooy maanaam ñi nga xam ne dañoo jot feebar bi te dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji ñeent fukk ak benn ñoo ci cas communautaire mooy ñi nga xam ni dañoo jot ci doomu jàngoro ji waaye dañoo xamul fan lañ ko jële ci ñooñu nag mbaaw am na ci juróom Ouest am na ci ñett Saint-Louis am na ci ñett Ziguinchor am na ci ñett Mermoz am na ci ñaar Thiadiaye am na ci ñaar Parcelles Assainies am na ci ñaar Yoff am na ci ñaar Almadi am na ci benn Avenue Lamine am na ci benn Bignona am na ci benn Colobane am na ci benn Diamniadio am na ci benn Diourbel am na ci benn Gibraltar am na ci benn Guédiawaye am na ci benn HLM 6 am na ci benn Joal am na ci benn Kaolack am na ci benn Liberté 2 am na ci benn Liberté 6 am na ci benn Mamel am na ci benn Nioro am na ci benn Euh, Nord am na ci benn Rufisque am na ci benn Touba am na ci benn Yëmbal am na ci benn juróom fukki cas ak ñeent ñi entré woon wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee fanweer ak ñeent kaa ñu ngi ci des ci service réanimation ñett ñàkk seeni bakkan ni ki démb dibéer fukki fan ak juróom-ñeent ci weer juillet bi ñu nekk ñeneen ñi des ñu ngi am tan ci bësu tey dale ko ci kaabu njëkk senegal waññi na juróom-ñetti junni ak juróom ak ñeent fukk ñetti kaa ci ñooñu juróom benn junni ak ñaar wér nañ si téeméer ak juróom-ñaar fukk ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi jaal suñu dëkkandoo yi nga xam ne dañoo jot a am ay mbokk yu wàññeeku di ñaanal ñi des ci hôpitaux yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm ministère de la santé et de l'action sociale di fàttali askan yi ñu gën a sàmmonte ak digle yi ñu joxe woon surtout ci période bi nga xam ne mooy période tabaski bi ñi war a ñibbi jël transport bi dem ci seen dëkk yi walla aussi ñi fi nekk aussi wala nit ñi di dem ci marché yi ak ci yenn bërëb yi ñooñu toujours fépp fooy dem nanga fexe ba képp ki nga xam ne yaa ngi janoo ak moom wala mu nekk sawet lu mu gën a néew téeméer euh, lu mel ni mètre dox seen diggante nit ñi di jëfandikoo seen masque yaa xam ne da ngay dem marché wala da ngay tukki nit ñi di gën a sopp raxas seeni loxo yi te aussi di fàttali malade yi mooy maanaam ñi nga xam ne dañoo ñu ngi sooxaale ak yeneen feebar wala ci yeneen ci pour seen wérgu yaram ñu continuer di dem ci dispensaires yi wala ci hôpitaux yi surtout ñi nga xam ne dañoo war a am rendez-vous di seeti seeni docteur war nañu continuer di ko def su fekkee ne xale yi aussi ñu bañ leen a fàtte dañoo war a toppatoo seeni ñàkk ñu jot ci ñàkk yi ni mu waree waaye nag jigéen ñu wérul yi tamit dañoo war a def ay consultation li ñu woowee consultation prénatale yi ñu wasin yi aussi war nañu dem ci seen rendez-vous niñ ko diglee ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam